ak euh, situation bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy dund ci réew mi Adama yow itam lan mooy sa xalaat tey li ñu waxtaane rek jëm ci euh, ñi nga xam ne jàpp dañ leen wala woolu nañ leen ci kanamu yoon li nga yeewoo di ko yendoo nar ko fa naane fu muus di jëlee neex ñeex nag ko fa naane baar yëgoo dëkk seddoo suñu kondaane ku wax ñu japp ñu ñu japp tej rap condamné phrase bi mo ci am solo ku wax ñu rap ñu japp tej rap condamné mhm. ni nga yéwo nar ko yendoo na ko fanané d'accord c'est-à-dire cette chanson mi ngi génn période arrestation Karim maysa Wade moy jamono reddition des comptes il y a dix ans jour pour jour ni defoon chanson bi clip bi parce que nous avons dem def clip bi ne borom bitig jaay ma gaz ko borom bitik jaay ma période bi ma chanson bi ni kon li li c'est-à-dire c'est du maquis sans maquis mhm. d'accord du maquis sans maquis. parce que jàppoon nañ ñu ñun Sénégal da fay jeex Sénégal que dinañ dinañ def délit ce qu'on appelle délit d'opinion day disparaître suñu président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye opposant li taxone ñu téye ko ko ndomba te téye côté ko ci kasso bi pendant un an vous mu génn dugg palais lii la waxoon ci texte mi ngi ko publier woon ci page Facebook am li mu ce comportement dommageable à la compétition politique démocratique et inclusive et la paix civile and mu ne and mu le président Ousmane Sonko fii la waxoon clor clochardisation continue la clochardisation continue c'est-à-dire de nos institutions Qui liberté d'expression liberté d'opinion moo waxoon sur la page Facebook Nous, rappeler ils ont décidé de de dénier le droit de faire appel d'une décision de condamnation et de connaître ce même droit à la partie adverse expliquez quoi ñaawlu ba pare tirer sur les magistrats ñu peut Ousmane Sonko l'actuel premier ministre opposant avait écrit ça sur Twitter l'article 80 est une hérésie juridique qui doit disparaître de notre corpus pénal mu celui qui est allergique à la critique ne doit même pas diriger une famille ou un parti politique à fortiori un état mu ne que xamante ni doo d'accord pour le critiquer munoo nekk des familles famille mm-hmm. wala parti politique a fortiori un état si on ne nii ku bañ critique du ñoom kon donc ñoom mënuñoo jiite famille bay parti politique bay jiite un état mm-hmm. parce que nak du samay wax ay waxam la aujourd'hui le constat dans ce pays il li y a 80 personnes dee mooy la liberté d'expression parce que dañ leen Que c'est une liberté xañ c'est une liberté la population bi ni cadeau. ku waxoon jamono joju ñu japp rap tëj population bi bañ ba tëdd 80 personnes ñak ci sen bakkan tay ci juroom benn weer mhm. on vit les mêmes situations moo tax ma d'accord ak titre Walfadjri recul démocratique parce que la démocratie c'est là c'est une liberté mhm. la liberté c'est une liberté d'opinion nit ki war na mën a jël xalaatam teg ko ci bopp réew mi mais ñu bañ ne ku wax ma jàpp ràpp tëj condamné. Mm-hmm. mooy li nga indi tey. mooy li tax ma génnee fii. Mm-hmm. parce que woy wi dafa am solo te ki koy woy di sama xarit. te bëggoon naa mu génn woyaat woy bi parce que bëgguma ko rappeler la chanson. mais est ñoom dinañu woy parce que tey ñoo ngi ci nguur gi. j'ai bëgguma ko rappeler. Mm-hmm. cette chanson là. j'ai son numéro j'ai ses contacts mënoon naa naa ko envoyé chanson bi ne ko jàmbaar yaa waxoon lii. génn leen ngeen waxaat Sénégal parce que pour que vous puissiez bénéficier de leur pour que nous ñu mën liberté 80 personnes sont mortes nañu bàyyi xel loolu pour que ñoom ñu mën jot liberté 80 personnes dañoo ñàkk seen bakkan liberté boobu ñu jot jox leen ñu nekk ci nguur su nekkee dañuy Sénégal liberté population bi tamit dinañ génnaat taxaw nit ñi dee parce que pour suñu liberté. man sama bakkan bii pare naa ko. pour suma liberté man xaw ma nag keneen parce que nag mbirum intimidation lay niru waaw Cheikh Yérim Seck li mu wax ana danger bi amul droit joxe xalaatam ci réew mi amul droit joxe xalaatam ci propos yu premier ministre tenir voilà te mu yàgg joxe xalaatam ci propos yi président de la république Macky Sall daan tenir Bougane Gueye Dany lu qu'il wax lu fi jar convocation Et il yàgg joxe xalaatam ci li Macky Sall daan def maintenant si on veut interdire les gens à parler à prendre la parole difficulté lay andi te li koy andi li yëpp du dara lu liñ doon def ñoom démb ak barke dem doon ko opposé wu la ñuy bañ nit ñi opposé wu ko c'est-à-dire éveiller la conscience citoyenne mmh. éveiller la conscience des Sénégalais parce que ñun notre mission mooy lépp luy nëbbu ñu wone ko parce que l'État ne te dit jamais tout nguur du la wax lépp du la won lépp ñun notre mission mooy ñu wax askan bi lépp won leen lépp nguur du wax lépp Adama Fall mu mel ni kon est-ce du looloo indi jafe-jafe bi ñuy dund tey jii ndax euh, ñoom bi ñu yegsee la ñu xam ne réalité politique am na ba tey jii lépp lu ñu duggee woon ak askan wi lu ci bare des na. dama ne ni ngeen ni ñu ko fii ba ñuy wàcc njëg yi fii laa toog ne leen ay cuune lañu waroon ñoon wàcc njëg waaw wala déet fii j'étais pas d'accord sur la baisse des denrées de prix des denrées de première nécessité xam nga tax. Mm-hmm. parce que c'est la loi qui dit. l'article 5 de, de, du code des commerces xawma lan mo wax ni so wañ décret bi nga xamni mom moy wañ ndiek yi durée de vie am 3 mois la su durée de vie passé te jëlo benen décret wala benen arrêté commerçant yi su len nexé ñu yëkëti ndiek yi. Mm-hmm. dinañ ci ñëw ci kanam inshallah allah maintenant for ci la situation bi am. Mm-hmm. ñu wax askanu Sénégal. ne leen élection ñu jëm c'est pas des reddition des comptes convocation yi convocation yi ngay lan la lan la Sénégal commissaire kayta lan la gérer Cheikh Yérim Seck lan la gérer Suzanne Camara lan la gérer bah lan la mhm. Imam lan la Adama Fall avec trois agents sama bir bureau lan la gérer lan la mhm. musuñoo gérer soo ma nee Lat Diop ma ne waaw parce que mus naa gérer mais Lat Diop est-ce que ay rapport daf ko épinglé euh, euh, euh, Jéggi Diop gérer na. mais est-ce que rapport fait épinglé ba pare précision la, Biégi Diop n'a pas été convoqué Mon mhm. mot dégg coow li mu dem laajte ji ñu ko fa pendant presque 8 heures de temps libéré ko mu ñibbi ne ko da ngay lundi. Ah waaw effectivement parce que l'on daf ko déplorer sax que le fait que mu gis convocation wala ñu koy euh, seet ci réseaux c'est-à-dire du mhm. c'est grave c'est un commissaire qui a écrit que nous ngi recherché Biégi Diop mhm. nañ ko gis ci frontières yi na te ñu xam këram li fi xew basiru Diomaye Diakhar Faye la ak Ousmane Sonko ni ñu doon waxee démb. senegal lu ko dal ñaari nit ñi la basiru Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko. parce que xam mhm. ñoom ñoo jiite réew mi. kenn convoqué wul Jéggi Diop Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ak Ousmane Sonko kenn convoqué wul Bougane Gueye Dany Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ak Ousmane Sonko kenn convoqué wul kenn tëjul commissaire Kayta ku dul Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko kenn tëjul ñi ñi ñu fi tëj yëpp ak ñu fi mhm. woo du kenn ku dul Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo toog Grand Théâtre mm. ne ñu ministre de la justice moo ko yónnee vidéo mu ne ko defal sa liggéey kon manam tàggu na ko non. loolu ñëpp dégg nañu ko ministre de la justice tàggu na ko. tey et la justice parquet fu mu bokk parquet fan la bok, parquet mën nga ko génne exécutif. parquet le parquet est nommé par le président de la république mën nga ko Le parquet, c'est l'exécutif, c'est le parquet qui convoque. C'est le parquet qui donne les informations aux forces de défense et de sécurité. Nous convoque les gens qui nous Nous la justice. Nous justice. Nous parquet pour agir. kon daal jàpp nga ni dictature bi dal mi ngi mi ngi en marche ci kon. loolu suko Sénégalais yi gisul am. moy hmm. man duma ma mo wacc fi ñu takal ma duma bet duma bet mais nak comme niko bugan té ñamé ko. Hmm. sama deret dinañ ko góo dina mi sen loxo bok ñom ñom ñaar sama deret mi ngi sen loxo ñom ñan Ousmane Sonko ñom ñaar ñi jité réew mi mhm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko sama deret mi ngi sen loxo parce que ragaluñu li ñi def parce que tooñuñu saagawuñu comme mom parce que suñu premier ministre lañu gis mu tok ne diw ak diw ak diw dañoo fenn te tey jii su ma waxoon ñoom <laughs> su ma ko waxoon tey yoon dal sama kaw convoqué ma parce que dama wax baatu fen jëmale ko ci ñoom mais nag ko man dañ maa yar. damay solal mbub bu yére bi nit su waxee lu dul dëgg danga ko naan li nga wax nga li ci gannaaw dëgg. kon mu mel ni buggaan aussi tamit na mu waxee kon euh, waru ko woon. Bougane nan la waxee. ni mu waxee démb ci ci ci live bi nga xam ni def na ko. li mu wax démb ci live amul dara amul benn propos offensant bu ca ne parce que ñoom ñaar nag xamante nañ. Nyom ñaar xamante nañ bu baax lii bugguñu cette opposition sénégalaise battre campagne bugguñu nit ñi continuer di toog ci média yi di yee askanu sénégal ñoom li ñuy nëbb ñu koy wax askanu sénégal bugguñu ko moo tax képp koo xamante ni da ngay wax ma wax ko fii tey képp daf la may ngay wax mm-hmm. ci xamal ni caabi dina la féete gannaaw so bo nga wàcc képp kuy wax nak la la wax tous les chroniqueurs qui sont pas d'accord avec le pouvoir ils n'ont qu'à préparer ils n'ont qu'à se préparer mais Adama na nga xam la ngay wax am ci ay preuves aussi yu leer dama ne dama ne mhm. ñun ba jamono baramu tuumam ñun lepp lu ñuy wax texte moñu ko may ci information yu ñuy galaane par ci par là la ñu soo jógee soo demee soo demee cour des comptes seen site di nga fa fekk les informations soo demee ministère de l' économie et des finances li ñuy wax di nga ko fekk les informations teg. Mhm. maintenant su ñu ñëwee toog déclaration politique su Ousmane Sonko defee déclaration politique tu ne penses pas que ñun dañ taxaw mhm. ñun dañu war a fay ku nekk 900000. loolu c' est de la communication politique. communication politique la. su ko defee ñun ñu andi beneen communication politique pour contrer sa communication xanaa moom daf ñoo gën ndey wala gën baay. il va avoir l'opinion à travers cette déclarations dañ koy Baye mu mu nax askanu Sénégal duñ ko Baye mu nax askanu Sénégal dañuy wax ak askanu Sénégal. dem fo ngeen dal démentir. mais wax réalité yi dama ne dañuy wax ak askanu Sénégal soxna si xam nga suñ président de la République ñi wala premier ministre victimisation bi moo dañ la fal pour trouver une solution mais pas les lu la dal nga ne diw la justice mom day tribunal mhm. des juge d'instruction ba ne diw sàcc lal damay laaj mom mën na taxaw ni diw na taxaw ne diw fen mhm. ba nit du taxaw ne mom waxul deug attends damay laaj toi damay laaj Ousmane Sonko a le droit de dire que diw ça la mhm. Ousmane Sonko a le droit de dire diou fenna man awma droit weddi teggi ci lim wax non damay laaj c'est une question que je me pose. ci bu amé am nga droit weddi tuuma. mom su ñu amee droit ne diou sàcc la. mom mhm. su amé droit ne diw kat la fenna man amna droit ne ko waxo deug ci boo amé ay preuve yu leer naññi. moom est-ce que moom am nay preuve. Mhm. Mhm. tuuma yimu mu ci bop nit ñooñu est-ce que amna na preuve. Ousmane Sonko ba mu dalee wax ba tey da nga koo gis mu génne preuve damay laaj. ba mu dalee wax ba mu nekkee ci opposition di tuumaal doomu aadama yi ba tey nit mus nga ko dégg mu génne preuve damay laaj. le premier leader politique chef d'un parti qui a été condamné par diffamation s'appelle Ousmane Sonko li may wax du sama wax de. Mhm. yoon na ko condamné mu def appel def recours def appel ba mu jeex tàkk il a été condamné définitivement pour diffamation Moi, wax lu la justice du Sénégal a certifié que Ousmane Sonko day du wax moi condamnation par diffamation mhm. man jusqu'à présent n'ai pas été condamné par diffamation donc mënul taxaw ne nit mënul taxaw ne man wax la Sénégal dan mu def appel defaat ba mu jeex takk mooy condamnation définitive mhm. tant que condamnation définitive amul ci nit man awma sañ-sañ taxaw ni nit ki sàcc la am na solo bu baax a baax déglul soo su ma amee preuve mhm. même su ma amee preuve tant que condamnation bi définitivewul man awma droit ni nit sàcc am na mhm. sàcc la mais moom moom am na droit bi moom moom am na droit bi quoi moom il a le droit de dire que tel sàcc la mom amna droit ni di wax ni diw fenna te ñeneen sénégalais yi amuñu droit ni mom waxul dëgg mom sañ-sañ bi mu am di wax nit ñi ni mom kaddu gogu mu ñaaw yoy muy wax man man yaruñu ma pour may naan diw fenna man ken ken yaraw mu non mais droit bi mu am pour accuser nit ñi jam leen baaraamu tuuma droit bobu la nit ñi am teggi wax li mu wax teggi ko ba mu set ne ko waxoo dëgg parce que sooy jiiñ nit sàcc da ngay génne document buy wane ni kii dafa sàcc l'affaire yee 94 milliards fii la toog ne suñ ci waxul dinaa génne di xam naa turu banque bi xam naa turu numéro compte bi mhm. kañ du 2016 ba tey

nit ki ne li jaaxal nguur gi moy mom fu muy information vous ñu porter ko plainte mu dem la presse nous informe une certaine presse nous informe que ba mu démé documents, dafa né document yaangi hein? dem keur Massar keur Massar la dem taxaw ne diffamation amul li ma doon wax internet la ko kon il s'informe via l'internet kon ken joxu document kon bamuy wax ni fi muy jëlee mi ngi don toumal l'administration sénégalaise voilà kon musul jëlee fenn kon li information yi mu don joxe li mu daan ni nit ñi andiwul ci benn preuve ba ci barki demb barki demb conférence de presse bobu lu mu wax lu mu ubbé ñi yoroon réew mi Macky Sall Amadou Ba nangam sangam nangam dañoo fen askanu Sénégal man tay ji suma ma waxoon gog googu jëmale ko ci mom yon dab yon yon topp ma moom droit bi mom amna droit bi wax lolu nit quoi man awma droit bi moi j'ai pas j'ai pas le droit de dire que de répéter les mêmes propos qu'Ousmane Sonko ça fait mal. d'accord Adama am nga droit bi aussi. déglul ma man ma parce que ce gars là il pense que les gens ont ont peur de lui il veut instaurer dans ce pays cette dictature réew mi duñ ko nangu réew duñu nangu cette dictature là parce que nak, les gens ñi donnent jóg maintenant naw ci lool nag kenn Alioune toujours cohérent démb li donne doon bañ démb moom la continuer di bañ tey mu Sissé, Cissé li mu doon bañ démb moom la continuer di bañ tey mais où sont les intellectuels

télé et médias yi dañ ko di en boucle pour sénégalais xamni li li Sénégal di dundou tay pire le Sénégal di dundou cette dictature là est en train de s'installer dans ce pays lan lañ ci djublu man awma droit ragal amna droit ragal hein am droit ragal pour mon pays ah. hmm. parce que pour le Sénégal la koy je suis prêt à laisser ma vie gis nga démb bañ leen doon def naka su dul noonu ñuy kaas di ko xeex di ko nangam dama ci ànd ak ak ñoom donte waxuma ko mais dama ci d'accord parce que la démocratie c'est comme ça qu'elle fonctionne quand une démocratie fonctionne comme ça. saa yi doo ñëw nag ba jël réew. yaay booy ñëw toog tegale say tànk nga ne journaliste bi du wax. nga ne homme politique bi du wax. nga ne keneen du wax nga ne du ma dem élection ak kenn nga ne du une dem élection ak Ken ñeneen ni kenn du ci campagne man campagne am majorité pour installer quoi un chaos faire revenir le Sénégal vers le parti unique y est. des gens sont morts pour que notre démocratie arrive à ça. ñu ñu ñu wéyal ba tey euh, waxtaan wi euh, Mamy yi dañuy jàll ci yow rek euh, comme ni ko Adama waxee léegi ñu daal di rek wax jëm ci laaj bi ndax dictature bi daal mën nañu jàpp ni mi ngi fii ba tey wala leneen la ñu nemmeekuwaat tey jii li nga